merci beaucoup professeur asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ginnaaw bi ñu nuyoo les leaders de toutes les coalitions yi nga xamante ni ak mouvement euh, ak plateforme yi bokk ci kuréel gi ñuy wax aar suñu élection te ñu bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw teew fi tey dañuy nuyu suñu mbokku journalistes yi fi teew Euh, profité rek ci occasion bi di leen massawu ndax euh, gis nañ xew-xew yi fi xew démb yenn yi xewee fii ci Thiès yeneen yi xewee ci Dakar ay journalistes yoo xamante ni nii euh, defuñu lu dul seen liggéey muy le devoir d'informer ñu gis les forces de l'ordre jàpp leen brimer leen dóor leen ñenn ñi sax ñu jot leen a jël téye leen loolu nekk loo xam ni ay images yu circulé en boucle te àdduna bi yëpp di ko naqarlu donc ñu ngi wu bu baax suñu mbokku journalistes yi. bala ñuy sori aussi ñuy yëkkatiwu kàddu njàll kàddu solidarité di wu famille yu euh, ñi nga xamante bi nii génn nañu àdduna ci manifestation wu démb yi te ñu am ci information ci ñaari nit officiellement. muy étudiant ba léegi nga xam ne génn àdduna ci Saint-Louis ak ci génn àdduna à Touba di leen jàll di jàll seen i famille euh, di leen ñaanal yàlla yàlla xare leen àjjana euh, di ñaan rek seen dee mu mën a mu mën euh, yàlla def mu nekk déegoo xam ne du nekk une mort vaine parce que ci période bi ñu génnee àdduna la ñëw dooleeku ci yeneen nit yoo xamante ni génn nañ ci àdduna ci taxaw di xeex ngir démocratie ngir justice ngir liberté sax fii ci Sénégal professeur wax na ko léegi li waral ndaje mi lu simple la contexte bi ñu nekk moom moo ko laaj yéen ñëpp demu te ñu leen ci jaajëfal gis nañ leen malgré grenade yi nga xam ni force de l'ordre yi sànni nañ ko suñu kaw gis nañ leen ngeen taxaw ci terrain bi di couvrir les événements hier démb plateforme aar suñu élection dafa woote ndaje ci promenade des Thiessois ñu bañ ko ba ni ndaje mi ñuy woote dañuy fexe mu nekk ndaje moo xam ni ndaje mu pacifique la parce que li ñuy wax naan boroom caq du xeex ak borom baatu nen ñun dañu nekk ci dëgg te xam ni ci une grande victoire lañ jëm moo tax bëgguñu def dara loo xam ni day yàq victoire boobu nekk suñu kanam ñu ni lépp lu ñuy def dañ koy def ci jàmm dañ ko ci def ci salaam def ko dans le respect des règles des lois et des règlements yi nga xamante ni moom moo tënk suñu dëkk bi le droit de manifester est un droit consacré par l'article 8 de la constitution du Sénégal ñu ni ci jàmm ak salaam ginnaaw bi nga xamante bi nii à 10 heures des élections le président de la République jël na de manière illégale la décision de d'annuler le décret convoquant le conseil euh, euh Euh, les elections le collège électoral du moins assemblée nationale bi nga xamante ni moom am na fa sa majorité mécanique ñu teg ay pexe yoo xam ne ci ay tappale kese lañ ko teg jàpp su ñu ay députés yi fa nekk dugal les forces de l'ordre les GIGN ci biir assemblée ñu jàpp leen brimer leen dóor leen génne leen assemblée nationale ñu taxañ taxañee procédure yi ni voté nañ seen loi boo xam ne dañoo dàq élection yi ba décembre ñun ñu taxaw nag ni loolu du fi am ñu nii bépp sénégalais boo xamante ni nii tu es épris de justice de paix mais surtout tu es un patriote et républicain ñu ngi lay woo ci noo ko mënee ci wax ci sa taxawaay ci sa man euh, manière de manifester nga jug taxaw pour que ñu wax président de la république ñu wax àdduna ni sénégalais yi le peuple sénégalais d'accordul ci report boobu ñu reporté élection yi mais lépp dañ ko woote woon ci jàmm ak salaam. malheureusement nag comme ñi ñu ko seqal ñoom jàpp nañ ni lépp dóoraate la xoqatal nootaate ñoom ñu jël seeni force de l'ordre ñëw sànni ko ci kaw askan wi dóor nañ ñi tas li nga xamante ni mooy rassemblement boobu nga xamante ni moom lañ nekkoon di def démb yeneen poñ yi ñeneen ñi ñëw après man certainement dinañ ci dikk mais man fi ma koy appesantir sama discours rek comme man je suis un auxiliaire de justice mooy di wax ak suñu mbokk force de l'ordre yi di wax ak sama mbokk waa justice yi parce que bu ñuy former noo force de l'ordre ci école yi ñeeni former moo yi ñëw souvent mooy honneur dignité patrie honneur àndul ak jàpp ay nit yu armewul ay jigéen wala ay mag di dóor ak di weq dignité àndul ak taxaw ci wetu ab régime boo xamante ni régime bu jeexal la di xeexal ab régime contre des populations désarmées patriotisme àndul ak askan wi soxla nga taxaw vers un régime qui est un régime finissant moo tax ñuy wax suñu mbokk force de yi que cette bataille là ne pas dirigée contre ñoom mais que nañu def aussi ñoom tamit très attention parce que adduna bi mu ngi ñuy seetaan gis nañ ay mbir yu xew ci yeneen i réew euh, yoo xamante ni. les forces de na ne sont pas à l'abri de sanctions kë ñuy wax nit ñi aussi ku mën a jël ay vidéo na nga jël ay vidéo ku mën a wut ay preuve na nga wut ay preuve parce que suñu génnee ci mbir mi ñi nga xamante bi nii dañu def loo xamante bi naka sudul noonu la nit ñuy toppee nit ñi tey bu boobaa noonu lañ leen mën a toppee di wax suñu mbokk waa justice yi ni tey bu ñu reposé élection yi ñoom la ñu jël en risée ñoom la ñu accusé ci mbir yoo xam ne mbir yu doy la utiliser leen ba pare accuser leen ba tax président de la république dàq élection yi donc ñoom ils ont leur honneur à laver ba tax na ñu leen di ñaan suñu mbokk yi nga xam ne ay xale lañ te démb ak tey fu ñu génn police wala gendarmerie jàpp leen bu ñu leen déféré devant les parquets du pays que tous les de parquet yi nekk ci dëkk bi nañu libéré xale yooyu ñu dellu seen kër parce que ñooñu defuñu dara ñi ñu ci jàpp ñépp amu ci kenn ku taal wala nga toj dañ leen a fekk rek ñu taxaw di manifester un droit constitutionnel ñu jàpp leen donc foofu laay yemale kat yi li ci des ñuy ñëw après man dinañ ci egsi mais di wax rek ni dañu gën a woo ñëpp ñu taxaw temm parce que xeex bi nga xam ne dañ ko xeex pour taxawal gën a taxawal démocratie pour gën a ñagal justice xeex bi mu ngi soog a tàmbali bis yi di ñëw dinañu gën a dugg ci xeex bi bu baax a baax a baax ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. pour parler à la communauté nationale et internationale. afin d'éclairer sur la situation de ce pays. Depuis quelques jours, le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous tous, nous savons que ce pays a toujours été la vitrine de, notre, de la démocratie à l'africaine. Malheureusement, avec le président Macky Sall, nous sommes regardés, nous sommes épiés et nous sommes moqués même. Pourquoi Parce que notre démocratie est aujourd'hui en lambeaux, elle est en berne. Elle est en berne parce que le président est en train d'utiliser la justice, d'utiliser la loi, juste pour euh, torpiller la Constitution, mais surtout pour rester d'une autre façon. Il avait pris l'engagement de rester, de, de ne faire que de deux mandats. Aujourd'hui, comme l'avaient dit beaucoup de leaders, il est en train aujourd'hui de prolonger son mandat par une autre voie. Mais ce que nous dénonçons, c'est cette manipulation de la Constitution. Nous dénonçons également cette violation de la Constitution. Et nous rejetons fermement ce, cette loi, ce décret pris par le président de la République juste pour justifier le report. Ce n'est pas un report, mais c'est une annulation, mais également c'est une violation de la loi, une violation de la Constitution, ce que nous rejetons fermement. À partir de là, nous demandons, nous exigeons le, la tenue des élections à date échue. Nous exigeons la libération de tous ces jeunes qui ont manifesté pour simplement le respect du droit, qui ont respecté la Constitution. Nous exigeons leur libération sur toute l'étendue du pays. Vous voyez que depuis plus d'un an, ils sont plus de 1000 Sénégalais accroupis dans les geôles de Macky Sall. c'est une véritable dictature qui est en train de s'installer et qui s'est même installée au Sénégal. Nous dénonçons cela et nous disons que la jeunesse sénégalaise, la jeunesse de Thiès va faire face, va résister par rapport aux moyens qui nous sont donnés par la Constitution. Nous demandons à toute la jeunesse, à la société civile, à tout le monde à manifester, à dire non à la faire fermeture, à dire non à cette dictature, mais également à dire que nous exigeons la tenue de ces élections. Nous exigeons la libération de tous les détenus politiques. Ils sont très nombreux. Nous exigeons des élections tenues, des élections inclusives et que seul le peuple a la possibilité d'élire qui il veut. Et par là, nous appelons la communauté internationale à mettre la pression sur ces apprentis dictateurs qui sont en train aujourd'hui de nous euh, d'ouvrir la boîte de Pandore le Sénégal restera un pays et nous tous nous resterons debout pour faire face je vous remercie. ñoo ngi leen di nuyu sunu mbokk journalistes yi di nuyu sénégalais yi di nuyu ceesuwaay bu baax euh, tey nag suma naataango maître Ousmane Diagne jaar na fi Adama Diawara jaar na fi dun ko baamtuwaat wax ji lu gàtt rek la dañuy mastaw journalistes yi li leen dal. te yàggul di masaw waa Walfajri bi nga xam ne dañoo jël seen licence bi yàggul di ko exigé mu delloo leen seen licence boobu nga xam ni retiré na ko lu mu gën a gaaw di xamal le président Macky Sall que du ñu reculer def nañ ko benn yoon askan wi xeex doomu jàmbur yi ga dee ci Sénégal yi bàyyi noonu ndax xamewuñ leen jaamaarloo dal lañ leen mës a xame tey ñu delloowaat buum nga ca mbooy mbooy ga dañuy ne wax ko rek ni ko dunu bàyyi duñu arrière les élections c'est le cinq noonu la ko constitution bi waxee te noonu lañ gëmee ni dinañ dellusiwaat rétablir la justice ñu xam ni le cinq élections yi dina am ndax foofu loolu lan jàpp te loolu mooy continuer les prisonniers politiques on ne parle pas de ceux qu'on a arrêté mais ñi nu jàpp boobu ba léegi ñu ngi exiger ñu bàyyi leen ñu dellu seeni kër encore une fois le président Macky Sall delloo sil sa xel te nga retirer lii nga xam ni teg nga ko ci taabal ji nga retirer ko ndax on ne va pas reculer sénégalais yi duñu bàyyi seen xool naqari na na na ko wér ni on va aller jusqu'au bout les Thiessois sont prêts les sénégalais son prêts et nous ferons face. Oui, ils sont au nombre de 18. On a 8 personnes qui sont à la première arrondissement et à la police centrale, il y a euh, personnes. Voilà, à Thiès, hein, le bilan jaajëfal jaajëfal bi ñu ngi ciy jiite euh, yéen journalistes parce que vous êtes très infatigable quand il s'agit de des affaires du peuple donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax bon tey fi tey li ñu fi dajale je crois que ñun ñëpp xam nañ ko on est face à une énième forfaiture du président Macky Sall je dis bien énième forfaiture maintenant cette fois-ci ça ça va plus passer dootul jàll parce que euh, le temps n'est plus au verbiage loolu la ñu wax mais wàcc ci terrain bi jàmmaar la ak moom parce que Macky Sall loolu la xam Macky Sall loolu la xam maintenant jeunesse su Thiès ku ko xam-xam ni ñoom ñu déterminé wu la ñu yàgg ñu yàgg xeex lañ ba tax na ñu ngi leen di woo parce que il ne faut pas aujourd'hui que ñu desserrer l'étreinte Macky Sall tey fi tey fa mu nekk xam na ni am na fu ñu ko téye te bu ñu ko bàyyiwul nag on aura gain de cause et c'est ça maintenant nos pensées von à l'endroit de euh, euh, nos frères qui sont arrêtés tey fi tey une figure comme Saliou Ndiaye très souvent yii moo daan nekk ci kanam wala daan na bokk ci ñi koy jiite ak ñépp ñi nga xamante ni téye nañ leen ñu nekk ci prison yi te foofu du seen place foofu du seen place donc ñu ngi leen di xalaat bu baax a baax a baax mais nag euh, euh, Macky Sall bu yóbboo moo xam ni loolu taxul ñu arrêter sa combat parce que cette fois-ci cette fois si on va gagner ça c'est sûr parce que très souvent moom dafa doon teg ay ay tànkam di avancer nit ñi di ko bàyyi muy continuer di di gën a avancer suñu kaw tey fi nag jot na ñu jóg taxaw continuer jàmmar la ak moom waaw suñu naataangoo bi wax na ko léegi-léegi nee na tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons il faut utiliser tous les moyens donc population thiessoise nañ gën a taxawaat ci ce combat là waaw euh, euh, xëy na démb la ko commencé mais mën na gudd mën na gudd donc bataille de combattant la kon buñ ci dellu ginnaaw donc euh, loolu laa amoon ci lu may wax euh, jaa ngeen jëf. ñaan Sénégal jàmm dellusiwaat si waaye ci kaw loolu nag mu ngi aju si président Macky Sall ndax lii mu bëgg a def loo yi di ko gëmloo sénégalais yi naan jàmm amul ci réew mi moo tax mu aj ay élection du yoon. ay at ci ginnaaw dafa am luñ ko defaloon bañ koy fay fal en 2012 defe naa ne sénégalais yi dañoo amoon. lu ñu boole boole seeni lépp jàppale ko kon réew mi bu demee ba yegg si ba fii moom dafa war a organiser ay élection yoo xamante ni mu transparente bu ko defee sénégalais yépp dem si urne yi voté ku gañ a jël réew mi mooy yoon ndax réew kat boo ko yoree defe naa ne kàddu moo la fa bàyyi boo xasee ba joxe sa kàddu defe naa ne lenn waratul tax ngay deltu ginnaaw man loolu laa gëm te lii mu def ak nit ñi nag nit ñi duñ ko ci bàyyi dañ koy ba dañ koy topp ba mu sës defe naa ne jeunesse su jigéenu Sénégal defe naa ne ñëpp ñoo sonn ñoo doyal ci régime Macky sàll bii ndax tey résime boo xamante ni bu metti ci réew mi la baadoole yi sonn nañ kër goo dem tey bu ñu toggee añ duñu togg reer man xam naa ci dara ndax damay dox ci terrain bi fu ne laay dem damay dugg ci kër yi di di di xool di ñaxtu nit ñi ñu dégg seeni i ñaxtu fu ñu toll defe naa ne ñu ngi ñaxtu te lii nag musta am Sénégal mu ngi doog a am Sénégal reportage élection defe naa ne mu ngi doog am Sénégal combat bi nag ñun ñëpp la sénégalais yëpp la ko wax mu ne la dañoo bëgg a dem élection 25 février 2024 comme lii mu bëgg a def dañ ko ciy forcer du ko def conseil constitutionnel lan la ñu wax ñoom man lan la ñu wax dañoo bëgg na conseil constitutionnel génn départager réew mi ndax sénégalais yi la ñu àndal wala président Macky Sall la ñu àndal man lool laa ci loolu laay am lu ma ciy wax. defe naa ne maître Awa Dieye mu ngi dégg li may wax seq na ma moom dossier defe naa nitu droit la bu déggee lii may wax dina ko confirmer man Anta Diop damay jël samay responsabilité xam naa ne ci droit laa ko xam defe naa ne lii. te ci sept sages yi la bokk defe naa ne lii ñu koy kii du jëw yóbbante la nañu génn ñoom ñoo mën a départager réew mi defe naa ne du kenn nag te defe naa ne si côté peuple bi la ñu war a far waruñoo ànd ak ki nga xamante ni nguuram jeex na ba pare mu nar a jaxase suñu réew mu taal suñu réew mi te duñ ko ci bàyyi tey nag duñ ko ci bàyyi ëllëg dañ koy defar nteeg moom ba mu saf sap ndax réew mi moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk wasalaam.